Diomaye Diakhar Faye ki xamante ni sénégalais yi fan nañ ko ci 24 bu ñu génn tey ji naka la ñu defoon loo xamante ni moom moo di passation de service ginnaaw pass prestation de serment ginnaaw prestation de serment nag mu daal di jublu foo xamante ni moom moo di palais présidentiel ñu daal def loo xamante ni moom moo di joxante joxante lenge Macky Sall au revoir Bassirou fay bien bienvenue les premières réactions de Gueye Para boo xamante ni moom tam mii na noppale trop Gueye Para ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, di la ñaanal di ñaanal internet yi ci Sénégal ak ci bitim réew te leen ñaanal jàmm te naan Sénégal dugg na ci ère bu bees comme ni nga ko waxee léegi. ñu ñaanal son excellence le président Bassirou yi fay Euh, ni mu duggee ci palais ci bismillahi rahmaani rahim yàlla na génn noonu ak alhamdulillahi rabbil alamin mhm. en tout cas son élection dafa suscité plein d'espoir ci Sénégal ak askan wi fépp fu xamante ni jaar na fa engouement lañ fa daan gis finalement e, fal nañ ko tey jii jël na pouvoir lu koy xaar Gaye waaw tey Sénégal wanewaat na boppam mhm. Sénégal wane na ne encore dëkk bu mag la tey képp kuy doomu Sénégal rek am nga fierté reconnaître ne nous sommes une grande nation boo xam ne dëkk bi mën na rëy ci mën na tuuti ci superficie mais tey wan nañ Afrique encore beneen modd ci wàll démocratie boo xam ne fañ ñu doon xaal kenn fekkuñu fa tout fait kon nag donc Sénégal def na beneen jéego boo xam ne dañ koy gërëmee tey li nga xam ne moo di coalition Diomaye président di ko gërëmee ki nga xamante ne tey mooy le président Ousmane Sonko. Hmm. parce que nee nañ Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko. tout loolu kenn du ko dindi. Hmm. ndax lëg bu lekkee alom na ko gërëmee coy kooku suñuy valeur la. Hmm. Afrique tey amaat na beneen souffle de changement. Afrique wanaat na boppam à travers le Sénégal wanaat nañ suñu bopp. modèle démocratie bi nga xam ne ñun moom lañ doon incarné am na loo xam ne effrité woon na ba nit ñi pett si yaakaar. tout mais euh, son excellence Diomaye bi mu ñibbisee ba ñëw indi na benn mode politique boo xamante ne ak waa PASTEF ak coalition Diomaye ak ñi àndoon ak ñoom ba ñu jël pouvoir bi tey parce que du ñu sël war nañ leen ne politique encore élégance la. tout war nañ ne encore ngëm-ngëm la. war nañ ne politique encore fois la ak abnégation. endurance ak endurance. dund nañu lu métti de. parce que su fekkoon na dañu nekkoon tey ñoom ay tokaar. Mhm. wala ñu nekkoon ñu ragal. ndax xoqatal nag bu ne defal nañ leen ko. Mhm. neexul mais nag c'est ça la réalité. Euh, ils ont dépassé largement là où dootu s'arrêter. Mhm. fa gars yi doon waafee ñoom dañ ko romb. waaw te lii ñu am seen fit seen jom. seen fulla man gëm naa ne ay patriote lañu. ak seen doylu ak seen doylu. waaw surtout ak seen doylu parce que bu doon xaalis la ñu bëgg wala seen intérêt personnel. Mhm. kon du ñu agsi fi ñu agsi. tout à fait mais jiital intérêt réew mi jël ko. ñoom ñaar ñuy ñaar ñoo xam ne kenn lañu. Mhm. ci bokk jikko ndax wax ma sa xarit ma wax la yaay kan. jomaay ba muy jëflanteeg Sonko. Mhm. xaraatuñu woon lii tey. ñoom ñaar ba ñuy ànd seen ànd. xalaatuñu woon ne présidence dana fa dugg lii gëmu jomaay mi ci boppam sax gëmu ko ñu amaan nag beneen mbir yàlla subhaanahu wa taala daf ñu jàngalaat ci à travers l'histoire de Ousmane Sonko ak son excellence jomaay jomaay Faye parce que léegi kenn ñemetu ko wax jomaay dañ waruñu ko ko wax encore son excellence lañ ko war di wax parce que yàlla moo ko jox tur boobu. son excellence El Hadj Mohamed Bachir. El Hadj Mohamed son excellence El Hadj Mohamed Bachir Jomaay. fay Jofeer. ah il faut ñu boole si jaxeer bi. jaxeer mhm. fay. tout le président de tous les sénégalais. Mhm. opposition comme pouvoir chef suprême des armées terre air mer politicien. Mhm. opposition. société civile pouvoir ñi bëgg ña bañ. ña bëggoon ak ña bañoon. ñëpp tey Diomaye mooy seen ku mu neex loolu la yàlla dogal ku mu naqara it loolu la yàlla dogal te yit defe naa nit ki gën a noppalu ci àdduna mooy kii nangu la yàlla dogal Diomaye mii ñu ko teg sax man gëm naa ne gëmu ko woon waaw y'a six mois moom gëmu ko bërki démb damay seetaan démb damay seetaan discours bi mu yëkkatee loxo Ousmane ndey ndeysaan foofu nag see fay pleurer naan ko yaay suñu président tey yaay suñu président ëllëg bi mu koy wax Kër Massar yaay suñu président ginnaaw ëllëg mhm. yàlla nee na ko déedéet jomaay yëkkati loxo bi waaye yow la nañu gëm yàlla. te it janvier deux mille vingt deux. janvier deux mille vingt deux. te ñu jàngat ci mooy nañu respectante nit en tant que doomu aadama. c'est très important. yàlla dafa wax ak ñun ci kaa bi bul gis nit nga di ko xeet parce que kenn xamul kañ la. waaw kenn xamul fan la kenn xamul nan la. am na ñoo xam ne tey bu ñu jàkkaarloog Diomaye wala ñu jàkkaarloog Ousmane Sonko les yeux dans les yeux. danañ ko def ak désolation bu metti xol boo xam ne dana metti te mënoo ci dara parce que taxaw nga ci palaato wax ko loo xam ne amaana waroo ko ko wax ñoom ñaar ñi musuñu musuma dégg Sonko wala Jomaay ñu wax ci ba àgg ci intégrité physique wala moralu nit wala ñu àgg ci nit foo xam ne dañ koy insi ñoom lu ñu wax ku fi luubal ku fi sàcc ku fi jël ku fi kii parce que ñoom dafa am style politique bu ñu woo askan wi ñu woo leen te l'histoire du Sénégal mosu fi am mhm. gi nga sa bopp Pastef mooy gëm sa bopp. les patriotes def nañu yëfi patriotisme maanaam patriotisme dama defoon ne. ci armée rek la amoon koo xamante ne mooy bu réew mi joxlaa sa bakkan sax war na cee des ngir réew mi loolu mooy la patriotisme. sa réew jaral la sa bakkan te xare yi fi ñu agsi ba yóbbu fii président yi terrain bu metti la. méttoon na Diomaye wax na ko ci discours bi. Mhm. am na ñu bëri ñu ci faatu. waaye maa ngi leen rend rendre hommage. tey fa ñu tëdd seen xol feex gi na seen xol sedd na. Mhm. am na ay martyrs yu si dal. Diomaye xëyul xëyul dugg palais. vrai parcours du combattant la ñu def. Mhm. parcours boo xam ñeen ko seqaloon ba ñu demee ba mu metti dañoo daw bàyyi leen fa. Mhm. ba mu mettee dañoo daw bàyyi leen ci biir mais ñu gëm seen bopp àndoose ko ba jël leader yi tas parti bi mais yàlla nee na tasuma ko. waaye moo tax nit ki. même bu fekkee ne bokk ak moom gis-gis. ci wàllu politique. ak lu debaa metti métti na ngeen wax ci politique. te nga bañ koo uñu wala war a wala bañ ko déshonoré. maanaam nga bañ a nga wàcce si champ politique bi. nga wàcc si champ ba dugg foo xam ne waroo fa dugg parce que ëllëg kenn xamul lan la. waaw traité nañ leen fa nu nekk jomaay mi. son excellence jomaay. fierté la tey pour Afrique. déjà ku xool ni mu soloo keroog rek nga xam ne ñii dafa am lu nu gëm. Mhm. tey jii Pastef. li ci gën a spécial est-ce que xam nga Pastef am na quatre états yoo xam ne am na Pastef léegi. quatre états. africain yoo xam ne. waaw waaw mooy bu Comore bu Cameroun. Comore am na benn Pastef. Mhm. Cameroun am na. Mhm. Côte d'Ivoire am na. Mhm. Guinée Conakry am na barki dee ma xaw. tey Pastef yi. les patriotes ñu ngi wéy parce que li Diomaye def lépp son excellence Diomaye def. ak Ousmane Sonko président Ousmane Sonko loolu la bind. ci boo koy wàlla jàng ci pédagogie ci armée l'exécution à l'imitation moom la ñuy defal africains yi waaw oui regardez-nous mm-hmm. faire et faites comme nous nguur kenn du ko jël donc le Sénégal est devenu un laboratoire d'analyse boo xamante ni lépp lu xamante ni ay fonctionnement politique la même fonctionnement de la société civile mën nañ ko mën a copier si yenn réew yi si parce que le Sénégal dafa nekk vitrine ndax benn dëkk boo xamante ne pratiquement yow li la wër dañoo am ay chef d'état militaire ba doyal foofu nag dama fay taxaw rendre fa hommage sunu armee sénégalaise. Oui. nous avons une armée républicaine. Mmh. une armée de métier une armée professionnelle. boo xam ne gëmloon nañu ne encore c'est les civils qui commandent c'est les civils qui sont nos chefs fii carte mooy fal carte mooy folli ñun républicain lañu ku ñu askan wi ne kii mooy suñu président ñu gérer ci moom. ndeysaan xoolal kii wax na ko si discours am euh, Mamadou Badio Camara le président du conseil constitutionnel nee am nañ ay xarit yoo xamante ne ñu ngi Afrique dañu leen naan bu ñu demee rek ñu ne ça va rek dañu askanu Sénégal di daal di taxaw wane beneen xar kanam boo ñoom ñu ngi leen laaj lan mooy seen i secret te moom nee na benn secret kese la fa gis moom moo di la voix des urnes bu urnes yi waxee rek askan am jàmm parce que ñoom dañoo bëgg a changement dans la pacifique. waaw parce que Sénégal tolloon na foo xamante ne euh, duggoon nañu ba chamboulé mm-hmm. ba ñuy commencé lim si dëkk yi nga xam ne ay dañuy am ay conflits moi j'avais des partenaires yoo xam ne dañu waroon ñëw Sénégal pour investir fii à Diamniadio maag sax maa ngi nuyu Moussa Seck de passage. Mm-hmm. mais dañu jékki-jékki part ñooñu waroon nañu créer mille cinq cent emplois ci pôle mm-hmm. urbain bu jam Diamniadio mais dañ ko woon ne ko mënatuñu ñëw parce que seen dëkk dafa nekk ci phase rouge stabilité mënu ko bu rouge mu ñëw wax ma ko mënu ko bu rouge de dana vert. ndax tey jii am na ñu fi nekk ñoo xamante ne man de gëm naa ne dëkk bii am na dëkk wàll la waaye am na koo xamante ne man nag li may wax sa n'engage que moi man Gaye Para ça n'engage que man gëm naa ne Ousmane Sonko xaw ma walliw la xaw ma xutbu la xaw ma lan la doon mais gëm naa ne nitu yàlla la par ses propos parce que am na yenn coïncidence yoo xamante ne nit du ko wax yaa trois ans muy insisté man dama demoon ba man su ma tëddee ba guddi sax. buñ ma ne Ousmane Sonko day falu président dama yeew rek gëm ko. yaa deux ans xaw ma un an dem naa sans limite. mu am problème bu ngand bu fi nekk. ma jooy ci plateau bi gars yi def ko mu viral. ñu ne ma Gueye Para lan moo tax mooy man dañu bëgg taal dëkk bi te duñ ko nangu. Ousmane Sonko n'a rien fait ñu bind Gueye Para défend la posture de Ousmane Sonko. ma ne président Macky Sall ñu ngi lay dugal ci benn rythme wool Ousmane sonk nga waxtaan ak moom lii ngay mujjee moom ngay njëkkee kii boo waxtaan waxtaanul ak moom dara du fi baax. waay parce que il la jeunesse. Mhm. te discours am dafa cohérent te li muy wax dafa leer nañ ku xam dara loo xamante ne man da li ma séduire ci moom loolu ci la bokk ku am benn dërëm boo xam ne am nga ko ci man jàpp ma ñëwal nga génnee ko. Mhm. ma nekk ak benn kilifa gu mag. mu ne ma man de yëkkati naa six million di ko jox Ousmane Sonko. mën ni ko six million mu ne ma waawaw ñaanu ma ko mayuma ko benn dossier bu ma doon topp ci ay terrain. kenn xamul ñaata at la mu dëgër këj. mais Ousmane Sonko lijjanti na ma ko presque en une semaine ma ñëw mu jébbal ma sama kayit yëpp ba ma ko joxee six millions ba génne ko ko puusaat nii ba ci moom ne ko lii ma ci soxla am na ñeneen ñu ko gën a yelloo ko man mhm. Ousmane Sonko loolu la ko tontu kii moo doylu kii mooy gor kii mooy nit kii mooy Sénégal dëkkal nañ ko fu ne nag mais gis nga dëgg <laughs> mais mais fu ñu ko fu ñu ko dëkkal fu ne ba léegi tey la waalo gën a aay parce que récemment am na ku génn encore dafa ne woon Ousmane Sonko bu ñu leen génnee ca kaso Macky Sall daf ko jox euh, cent million le lendemain ñu jox ko 1 milliard maman Bassirou euh, excellence Bassirou Diomaye fay xam nga ki gën a sonn ci àdduna. Mhm. mooy ki nanguwul dogalu borom bi. oui ça c'est waa PDS am na ñoo xam ne mosuñoo nangu ne Macky Sall mooy président de la République mais dañ doon sonn parce que ku xool cursus bi mu jaar. ba nekk palais yàlla mooy fal président. kenn du na liggéeyul. man du ko wax de parce que il a beaucoup travaillé domaine bi ma nekkoon muy force de défense et de sécurité. li ci Macky Sall def benn président mosu ko ci def. ci équipement ci ci ci ci ci ci ci wàllu euh, dund ci cadre de vie ci loolu. mais fii sénégalais yi gënoon a sonn te li nga xam ne moo ko gënoon a daaneel sax loolu mën na ci bokk mooy panier ménagère. bi de cher képp koo xam ne newoo pré Sénégal nit ñi sonn ñu ñu c'est parce que dañ la yoral sa dépense. billaay pas retraité yi rek a yor kër yi. te lii ma lay wax boo duggee ci banlieue bi. dem yëmbal benn baraag buun Kër Massar xam ne jàmbaar lañu. immigré yi nga xam ne ñoo ne à l'étranger suñu doom yi nga xam ne ñoo nekk France Italie Espagne États-Unis mais champion la ñu jàmbaar la ñu. Mhm, joxe nañu de. da dañu participer ba dee. ñoo yor kër yi. gis nga orange money weef yi yónnee war yeeg kii yu money yi. Mhm. li ñuy dugal ci budget réew mi maar lay misi am na kër yu bëri tey dem nañu ba benn repas la ñu assuré par jour. Mhm. tey Sénégal problème fajo am na fi. ku fi am malaat boo ko yóbbu ci structure sanitaire yi la ñu. Diomaye nag euh, son excellence le président Diomaye. li koy xaar dafa metti dafa diis. foofu nag na sénégalais yëpp xam ne. kenn ku ci nekk nga def sa bopp patriote defal sa bopp Ousmane Sonko. defal sa bopp Diomaye defal sa bopp euh, kii euh, groupe gi daal. lépp loo xamante ne luy développer réew mi la. nga def ko waaye nag ndar du xëy sotti kenn ku ne la nga nekkoon yokk ko. te xam ne réew mii day neex day neex. danañ raw Dubaay léegi léegi léegi te gëm naa ko te ñii ay jeunes lañu yoo xam dañu am détermination dañu am engagement tey jii li ma koy digal mooy bu fi jógee na woo ay mbokkam mm-hmm. na dem Mali mm-hmm. woo Assimi Koïta tey ñoom ñëpp ñu ngi koy déglu mm-hmm. na woo Niger na woo Burkina nawoo woo Guinée Conakry na woo Guinée Bissau na woo Sierra Leone euh, kii Mauritanien bi. Mauritanien oui le président du de la république. ñi ko wër ñëpp islamique. na leen woo dajeeg ñoom ñu xool nan la ñuy def voies et moyens. Mm-hmm. pour unir seen force ba mu doon benn. am na ñoo xam ne nag loolu arrangé wu leen. mooy la France et dama koy wax fii. Mhm. la France a toujours divisé pour régner. Mhm. et je pèse bien mes ñun lu ñu dal ci wàllu politique kenn teguñu ko lu dul France. si on est la jusqu'à sous-développé ba dem ba bu ñu lekkee du ñu laan c'est parce que dafa am koo xamante ni ni ko président Ousmane Sonko waxee là il est temps qu'il lève son genou sur notre cou. Mhm. France dafa jël baatam tëral ñu teg ko fii ba noyyootuñu. na jël seen responsabilité jël le destin en main xam ne africains yi ñoo ko fal. di déglu discours Sékou Touré ak discours Thomas Sankara lépp lu ñuy def. bu mu coupé relation. mais na nekk gagnant gagnant une coopération bilatérale. alors euh, mu ngi wax ni euh, moom déjà il faut que mu dugal loo xamante ni moom moo di. même euh, discours am euh, récemment waxoon na ko la renégoci la renégociation loo xamante ni moom moo di les contrats yoo xamante ni ñu déjà établi nañu leen loolu il faut ñu daal ko jublu pour que sénégalais mën a gis seen bopp si euh, seen i ressources tey jii nii ñi ni ñi commencé nañoo indi loo xamante ni moom moo di ay terme maanaam la dualité Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye wala la comment il s'appelle lan lañ ko a waxee sax euh, la lañ ko mën a waxee si seen diggante wala mun nañ indi benn terme boo xamante ni suba mun a indi benn féewaloo seen diggante comme tey jii nii euh, le président Mamadou Badio Camara moo ngi koy wax ni leen les démons de la division. yal na yàlla musal leen ci seytaane. Mm. waaye seytaane nit la dafa am nopp am gémmiñ waaye man seytaane bi ma ragal du suñu biir ñun en tant que sénégalais man seytaane bi ma ragal noppam day xonq.

2011. 2011 2011 ba léegi le Sahel est divisé. grâce lan Tchad euh, Burkina Faso. dëkk yëpp Mali et eh, Mali ba foo xamante moom moo di Niger. ba Niger. Mhm. na leen moytu te bu muy wax ak ñoom na def ay discours yu ferme vis-à-vis de la France te en matière de partenariat na autonome ku ma neex laay defal mbirum génn français faak yooyu duma ko wax parce que kooku beneen domaine la boo xam ne. c'est progressif loolu lu muy waxtaan ak ay mbokkam la xam nga mbokkam bu may wax mbokkam waxuma France. mais les autres chefs d'État de la CEDEAO. les autres chefs d'État de la CEDEAO. Hmm. parce que son excellence le président Diomaye. Hmm. dafa am sacerdoce. mission bu rëy bu benn président africain mosul am parce que fi mu ñëwee depuis l'indépendance. Hmm. ak léegi. dafa ñëw ci benn phase tournante boo xam ne depuis l'indépendance Sénégal mi ngi doog dugg ci phase indépendance li fi nekkoon yëpp du indépendance. Mhm. son excellence le président Diomaye dafa war a indi la renouvelle renaissance africaine. Mhm. ci régime am la war a amee. fii la Sénégal di déparé gaz am na fi pétrole am na fi zircon am na fi chiotte am na fi lépp ñu nëbbuñu ko mais moom bi mu ñëwee da koo xëy muy nag doomi séréer di gor. Mhm. kii du wor Ousmane Sonko newoon na du ñu leen mës wor. man su ma koy wax j'ai des chefs de poule. oui. billaahi duñu leen mës a wor. waaw ah, parce que ni si ñàkk seen bakkan bëri na de seen projet bi askan wi suñu projet la. te bu doon gor Ousmane Sonko koy gor bu doon keneen lañ ko proposé génn na kon tey jii mooy ne ci palais mu ne man sama jëmm moo am solo jëmm jomaay la kon France dafa am défi bu mag bu ñu war a relever waxuma ne nañu couper France waxuma je suis anti français mais mbirum francais fa danañ ko càmbar. entreprise yi nga xam ne amoon nañ fi ñu exonéré ay tax au nom de quoi. discours ba list boobu na ko Ousmane na ko Diomaye jël list waaw opération opération fiscalité. waaw nañ ko génnee. opération delloo suñu <laughs> suñuy impôt. opération delloo suñu impôt. ak opération jàpp sàcc. rëbb sàcc dana ñëw. parce que nag benn nit mënul toog. te ay milliards sénégalais moment boo xam ne ay doomi Sénégal ñu ngi fii bu ñu añee du ñu reer. yow nga téye ko jël ko contribuable sénégalais bi di fay loolu demande sociale la. mais est-ce que bañ a fay impôt am na est-ce que fi xamante ni eh, au nga dem fay ko directement fa xamante moom moo di eh, au trésor yow nga war a fay 10 francs ma ne la noo jox ma di eh, au nga fay 10 francs jox ma 5 francs nga ñëw jox ma ko directement mais amee ah, est-ce que du loolu lañ siy gis. gis nga am réew. Mm-hmm. boo koy am réew boo koy defar. Mm-hmm. li nga war a njëkk def mooy lutter contre la corruption. tout à fait. te loolu lépp xeetu corruption la. Sénégal mm. benn transparence amu ko fi ci marché yi ñuy joxe. te loolu dañ ciy xaar état. am na ci yoo xam ne bu ñu koy signé assemblée nationale. ñoo ko war a signé voté ko kii ko. am na ci discours yoo xam ne président Ousmane ko taxaw na wax ko ko. Mm. ci assemblée la ko taxaw di ko wax. booba temps le ministre de léconomie mi ngi toog mu wax leen carrément fii lu fi am rek fii lu ñu fi wax rek son excellence président Ousmane Sonko wax na ko mm. wax nañ ko exécuté nañ ko parce que ñii li tax nit ñëpp gëm leen xool élection bi dans l'histoire de Sénégal man Senghor ba léegi ñoo ngi fi ñun xam nañu réew mi nan lay fonctionner de gone yii ku leen bàyyi dinañ régler réew mi te di ngeen fi gis beneen air changement ah bi Diomaye faloog léegi mm-hmm. am na ñuy xëy dem ci me uti médecin de pour naan garabu nelaw. <laughs> waaw am pagaille nelawatun de. Mm. waaw waaw sëriñ si nga xam ne tamit dañu làqatu woon. di ut ndomb loolu ñu naan meles xam nga meles. wa ah xam nga meles. daan nañ ko benn ndomb la boo xam ne day ñuul boo ko takkee. kenn du tudd sa tur. waaw temps yi ndomb boobu dafa dafa seer dafa ay gars yi jënd nañu ba mu jeex mais ñii dañu ñëw ak ñoom ay ndomb yoo xam ne mënoo leen jàpp. Mm. mu jàpp leen parce que bu doon jàpp jàpp nañ leen jàpp nañ leen. mënoo leen léemu quoi mënoo leen léemu. parce que ñii son excellence ak ñoom seen. dañoo léemu seen bopp laata ñuy ñëw ñii bu leen sëriñ doon jàpp duñ fa agsi ndax xoo nañ leen ba tooy bu doon ndomb da di jàpp duñ fa accès ndax ndomb lañ leen ba tàyyi ñii dañoo ñëw ak conviction boo xam ne dañu ànd ak yàlla suñu borom. Sonko nee na ñun dañu gëm yàlla. la foi. yàlla nee na inna allaha ma saabiriin ànd naa ñi nga xam ne même bu ñu leen tooñee dañuy muñ. te gëm li ñu gëm te xam ne li ci man la. am na discours boo xam ne góor gi paa bi da ko daan wax ndeysaan suñu maam. Cheikh Anta Diop. nee na yéen a ngi def lu leen neex vous la France. mais demain sunu enfants yi dinañ réveillé yow kii tamit wax na ko. te lépp lu ñu àkkoon dinañ ko jël Sékou Touré waxoon na ko. Houphouët-Boigny tamit waxoon na ko Houphouët-Boigny wax na ko nee na jël leen li ngeen jël dès à présent un jour viendra. tey jii France. te ba houphouët ba bi mu koy wax kii moo toogoon Jacques Chirac. Jacques Chirac a nga toog la nouvelle renaissance de l'Afrique vient de naître yàlla jaarale ko par son excellence le président Bassirou Al-Bachir Diomaye Diakhar Diakhar fay Faye le vrai sénégalais. alors rendre nañ ko ay honneur tey jii nii bu fekkente ni mën nga ñëwaat ci honneur yooyu xamante ni tey jii rendre nañ ko fale ci CICAD. Euh, waaw jam ñaajo waaw loolu noonu lan lay signifier ci euh, mbirum commandement. waa honneur man en tant que ancien militaire boo ma ci laajee dinaa ci sawar. Hmm. parce que les honneurs dafa nekk li ay actes yoo xam ne moom la ñuy rendre la plus grande solennité des événements militaires. Hmm. comme les défilés comme euh, les prises d'armes ak yu demee noonu mais bii nag dafa bokk ci li si mën ndax dafa am ay symbole yoo xamante ne ci état ku dul président de la république du ko am. bi jiitu mooy drapeau bu ndaw bi ñuy am ci kaw. ñu bind ci MS Macky Sall. tey jii son excellence dañ ciy bind. BB euh, B Basirou. Jomaay mm-hmm. bu fi nekkulee. Mm-hmm. bu ndaw bi du yéeg. Mm-hmm. mais bu fi nekkee waaj kooku moom rekk ci am droit. d'accord bon drapeau bi nga xam ne troupe bi le drapeau de la République du Sénégal. mooy drapeau national. bi am bu ndaw bi ak bu gudd bi te gendarmerie yor ko tekk ci kanam. buñ koy sëggal noonu ñëpp ku ñëw dañ la bu dee ministre la ak général ak koo mën a doon drapeau bi day taxaw mais su fe voilà comme nii. Mhm. léegi buñ ko sëggalee ba mu mel ne luy laal suuf nga xamante ne mhm. day laal suuf te laalagul suuf kooku seul le président de la république. Mhm. son excellence Bassirou Diomaye Faye moo tax moom moo am droit ñu koy sëggal sëggal boobu ku moom kenn du ko sigil kon président du affaire bu caaxaan de. président du affaire caaxaan président affaire yàlla la affaire baatin la du fo bon caabi jooju ko Macky Sall président son excellence jox moom dong lañ koy teg ci loxoom dañ koy paasante kon si depuis Senghor ba léegi la fi nekk. ñun Senghor lañ commencé woon di défilé ba ci mag ba ci son excellence. Mhm. kon lu bëri fi la ñu fekk. bon am na ci am na ci yoo xamante ne ci wàllu honneur otoom tamit moom dong mooy am oto bu amul numéro. waaw PR PR. bon caq boobu ñu ko jox kooku dafa am lu muy symboliser chaine boobu chaine boobu c'est le grand maître de lord national du lion le grand maître caq baa ngi nii caq bii ngay gis mooy le grand maître de l'ordre national caq bu rafet la waay ah ordre national du lion gis nga bande boobu ñu ko takkal noonu bu amee trait bu jaune bi moom la ñuy wax les mérites d'accord ay croix la ay ay degré la léegi président bu lay décorer ci ordre national du lion foofu dalay accolade mais bu dee mérite la du la accolade dalay jox loxo kese. d'accord. moo tax la grande cha fu ñu dañuy jël un officier. Mhm. général wala euh, supérieur de l'armée jox ko def ko la grand chan grand chancelier. d'accord de la présidence kooku mooy lijjanti loolu la chancellerie. dañ ko degré par degré moo tax ku def raay bu rëy moom la ñu moom nag bi gën a rëy mhm. moom nañ koy jox. mooy caq bi ku dul président de la république benn yoon lañ ko koy taqal. moom dong moo ci am droit. d' accord tey jii. jour prestation de serment kese lay mën a nekk tamit. loolu lay nekk. ok 4 avril tamit drapeau boobu ñu ko sëggal noonu. Mhm. buy def revue de troupe. waaw corps bu mu romb da koy sëggal. après mu taxaw wala day. day romb. d' accord day romb mais benn rek lay taxaw bu ñuy hymne bu ñuy jàng hymne national tey lañ ko jàngal première hymne national mhm. de la république du Sénégal mooy bañ ko def ci buntu palais bañ ko defee tànk j'ai failli pleurer. bañ ko defee ay para nag ñoo ko présenté les premières armes. oui para may jam ñaajo. jam ñaajo. foofu bataillon de parachutistes lañu indi les jàmbaar mu am ci une très grande fierté parce que ñun nous les para en tant que parachutiste en enjambé yooyu noonu métti na de. ah non jàmbe boobu wiccax boobu muy wiccax tàng yi kooku. Mm-hmm. escadron gendarmerie loolu ñu def noonu.